West Ham mu ma yaaxal yaaxal yoo ya xamante ne ah boo demee Liverpool ñoo wicket. yow Liverpool man man depuis three years for now boy one. Oh, Liverpool yaa against. boy, Liverpool like five goals you gaaw la la joolaa. Ah, booy dia mama lil boy, loolu ni Lille boy, ma toog booy Lille booy ñu lead four sax one not boy, ma toog capa two one mënuma understand booy. Lille ñu ne du ñu. boy, seen bopp nga xam ne. wan nelaw booy. man démb dama against Barça booy yow yoon na yoon na yoon na xamuloo ko against booy Baasa loolu tam bu doon na booy Baasa man bu leen dee tegal ba dëgg dëgg Baasa démba sa def yow struggle la gas loolu yee danga play bet dama play bet ngeen doo ko play yow doo ko play déedéet bàyyi ko bàyyi ko bàyyi ko bàyyi yow da nga bëgg a def sa bopp comme kooku noonu di nettali di wax ni suñu play ngeen wax tikati ni si wax kii sax ñu bëgg a jël ah day play di rey nit yi fii